Eh, di leen màggal lu bëri doole waaw di naan moom tey moom macha allah waaw ci Madior ak joor waaw lu ma ciy wax rek mooy eh, joor xam naa lu ko kii indi téléphone xam naa ne soo oytuwul Madior lay wo te foog naa ne tamit photo bi nga xamante ne moom la seexu yaayam boobu noonu yor su ko wanee Dior rek Dior dina xam ne ne carrément photo bu mu gisoon ci yaayam kii tamit yor na ko. mais moom mënul comprendre ndax parce que yaayam waxu ko woon ne moom seex la loolu mooy problème bi mais tey daal moom macha allah tey daal moom macha allah man daal moom comme joor wér na rek alhamdulilah. sëñ bi naa def si jaamu nag foofu ça va léegi laa dugg youtube gis gis si bi ma jël ko nag pour commenter si maajoor a joor gis nga waa jooju noonu xadi saar booleeg booleeg joor tam indi ko si këram tam jis ko rek ne yaayam la. ah joor foofu noon lool mën naa nekk waaye wér bi dafa yomb wér bi yomb na torop ndax joor waroon naa dund ak femme bi ba si kanam ba di xalaat lu mu dund ak yaayam si ginnaawam ba pare doog a mën a foofu noonu mémoire bi ñëw ndànk ndànk mu mën a tane waaye mu jékki-jékki rek waaji woo ko rek mu ne ko tudd ma loolu joor joob laa tudd loolu yomb na torop te épisode bi ngeen ko daggee dafa gàtt fi ko daggee wala nga bàyyi ba si kanam ba joor jot mémoire am ba maa gis ko ngeen doog a jeex épisode bi waaye ngeen jékki-jékki rek daggu ko nii nii daa merci. man daal dama commencé jaxasoo dëggantaan dëggantaan daal parce que man mënuma comprendre la moo tax seen instant rek yaama ak yaayam ñuy am fituwaa si kaw joor donte yaama dañ koy yóbbaale man nangu naa dañ koy yóbbaale ndax man xam naa ne lépp lu nekk ci moom rek yaayam la bu dul yaayam yaama bonul mais joor li muy dund dafa metti metti na torop metti na daal bu fa metti yam lii daal moom lëndëm na daal ci boppu ñi ñi parce que lii waru moon nii ak nu mu mënti demee joor fi mu nekk jamono juñ toll nii moom moo war a moome van ndax naat jub chaque instant mooy gañe tamit waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu dama bëggoon a participer ci Madior ak Dior man sëy bi neex na ma commencement ba fin lépp neex na ma mais su ma sañoon viole bi ci boppam du am parce que imaginer yow sa yaay mu ngi accidenté décédé nga nekk ci ay problème tourne jaaree fa dof loolu yëpp problème la dafa doyoon mais doole ci viol après moom da ngay xalaat su wéree su wéree moom gis ne dañ ko viol loolu tamit da du neexut ci xol mun na koo indil beneen problème viole bi mënoon a ñàkk daal man foofu laa gisee waaw série Madior ak Dior bu ma neex la série boo xamante ni bu ma ko dee seetaan daf may delloo lu bari en plus daf may fàttali lu bare bare bare ci sama vie daf may fàttaloo tamit naqar yu bari bare bare ci sama vie yoo xamante ni dund naa ko peut euh, mu doon loo xamante ni tamit daf lay yee di wax ne nii mu commencé bu ko continuer noonu tamit dina neex torop parce que série bu ma neex la billaahi wallaahi série bu neex la série Madior ak joor man moo ma dàqal ci série sénégalaise yëpp moom rek lay seetaan damay bu ma bu ma ko tardee sax damay yàkkamti zéro heure jot moom mën naa koy seetaan ba benn heure bi duma sax nelaw damay teel a liggéeyi ndax neex bu mu neex duma ko tardé xalaatuma ko sax parce que lim may fàttali ci sama vie en plus lim may loo di wax ni daal kontaan nañ ci torop kontaan nañ ci torop torop nii rekk la parce que tamit boo jógee di def yenn yi di nga dégg lu nekk di nga gis lu nekk mais dangay gumba tax lu continue ci loolu noonu ndaxte dina baax yéen mention spéciale daal kontaan nañ ci série bi asalaamaaleykum waa lu xew tv waa dama bëggoon participer bi nag ci Madiori Dior vraiment fête bi neex na torop torop torop mais tamit pourquoi yaayu yaamu moom mënul jéem a tamit à chaque fois moom lu bon rek lay def mais tamit xëy na rôle bi daf koy jouer rek mais nekkul ci ñoom nekkul ci moom quoi ndax xëy na ñi ñi nga xamante ne mel nañ comme moom wala ñuy bëgg mel comme moom xëy na bu ñu seetaanee théâtre bi dinañ arrêté pour ñuy arrêté nag il fallait moom benn affaire dal ko quoi comme genre lii muy def nit ñi il faut moom loolu noonu dal ko Bourama nag moom instant bi warul fiire Madior ndax instant bi journaliste bi xam na ko dafa fiir da koy fiire ak ci këram journaliste bi tamit day bëgg a day bëgg a day bëgg a nekk moom dafa waroon régle rek ndax xam na ne moom yaay ji moom à chaque fois da koy yàkkar kanta Dior nag bu fekkent na relation ak doomu tàntam boobu mun na mun na dem man daal bu ma doon may moom soxlawul muy retourné waat si Madior vraiment seen théâtre bi neex na trop en même temps am na sens wax dëgg yàlla man duma ko rete salaamaaleykum waa série Madior et Dior ah seen série bi de apprécier naa si kon ñu si ñi apprécier macha allah neex na trop neex na trop dama koy suivre dama koy suivre toujours waa yéen macha allah daal yeete bi ngeen di yeete am na chance trop trop trop trop trop macha allah man ji duma ci bëgg di dugg sax xam nga rek mooy loo jabaroo homme de moom dafa war a euh, yu bëri waru si dugg mais xam naa rek gis lu rafet apprécier si loolu dara nekku si moo tax man ma apprécier si nii seen film bi moom yéete ngeen si lu baax a baax yée ngeen seexi yée ngeen tamit jigéen bu capable man daal seen yeete bi neex na ma trop macha allah joor moom moom moom moom sama idole la <laughs> waaw joor moom dama neex torop salaamaaleykum une deuxième fois maa ngi nuyu ñëpp di wax nag ci euh, nu mu tudd Madior ak Dior bi ah Madior ak neex na au début mais instant yi moom maa ngi déglu commentaire yi am na ku njëkk a wax kooku lu mu wax man dama dama ko jàpp ndax wax na dëgg waa Pikini production defal lu ñu leen loo xamante ne nii mun nañ ci gis suite dikkoon nii la woon demal ñu seen ñaata épisode buñ ne jeex na tey rek bu subaa ñu indiwaat leneen lu bees série nag dafa nekk loo xamante ne da koy teg ci ordre ndax yow da ngay def pour nit ñi euh, lu leen yee ndax suñu Sénégal ku nekk xam na li fi ne kon pour nga jouer fii série yomb na mais su bëggee nekk que ne da ngeen def nag seen épisode yoo xamante ne kenn xamul fu mu jëm ba pare du am benn suite loolu euh, je n'aime pas ça bëgguñ loolu ñu dama ne maa joor ak joor laaw maa joor ak joor daal moom affaire bi ni mu demee moom dafa dafa dafa dafa jaaxal ñépp ndax yow loo xam ne benn nit rek benn nit rek lu mu def rek mu réussir du am defet mu film bi neex na torop torop mais man dof gi joor dof daal moom ma ci metti man pour man daal joor warul woon dof ndax joor dafa waroon toog ba xam ki rey yaayam kan mais bu joor dofee amul famille dem di taxawaalu yaay maajoor génn kër ga benn famille rek nekk ci kër gi rek nekk ci kër gi rek lu kon lu leen neex ñu def lu leen neex ñu def dafa yomb daal te maajoor du dem wëri joor du dem seet joor doo dem police doo joxe photo joor lu dul di sañse rek taxaw rek takk say lonet rek fi mu daa man loolu moo ma ci metti ma loolu kese mais nag neex na xëy na ci kanam moom dina normal ndax yaakaar naa ne joor itam li ko tax a wér mooy dafa gis ku nuroog yaayam bu ñu xoolee action bi dafa daw nekk sama yaay léegi kooku nuroog yaayam loolu moo tax mu wér parce que doful woon rek xel doful noonu xel mi dafa demoon rek mais su gisee yaayam xel mi day dellu si man daal loolu laa yaakaar rek mais ki mu gis yaayu docteur bi mu gis kooku seexu yaayam la mais xamagu ko mais kooku mu gis mu nuroog yaayam moo tax mu wér mais nag xam naa daal dina neex ci kanam. ndax ñun dañ leen a bëgg dañuy xuloo ndax yéen kon nag suñu sañoon bu ngeen di tegati ngeen teg loo xam ne macha allah man moom dëgg yàlla moom dama leen a bëgg ndax man dangay moo tax kon nag il faut ngeen góorgóorlu ndax fans yi tamit mm-hmm. waaw. salaamaaleykum waa Dior waa Série Dior Ama Dior. ñu ngi di leen wax seen séri bi neex na trop macha allah neex na neex na mais man fenn rek laay xaw a ñàkk wuuteeg nit ñi gis-gis mooy euh, kii euh, comme ça naajub daal di dëkk ci di def lu bon di def lu bon rek te mënuñu koo jàpp baa di ko protéger te lool tamit moom it dëgg yàlla loolu moom bu fekkee am na tamit kon bariwul waaw. naar moom dafa war a feeñ même ki violé joor tamit waru ko woon a ndax bi mu koy commencé summi foofu tamit warutoon a gisaat joor daal man pour man bi joor demee ba dugg foofu warutoon a gisaat joor beneen bi tamit fi ñu ko jëlee yóbbu ko ba ci sareet sareet bi mu ko njëkkee fore yóbbu ko ba kook tudd joor man jàpp naa ne joor moom waru ko woon a bàyyiwaat mu dem comme que nit kii dafa wérut mu ñëw ma jàpp naa ne moom da ko waroon a tee ba gis ay mbokk waaye waru ko woon wax mu yóbbaat ko fi mu nekkaat foofu daal erreur la moom. salaam salaam Pikini production production maa ngi di leen soxla naar bi mu yebalee xët si mu dem rey joor lan moo tax xët dem sàkku joor bi mu ñëwee ko naar naa waxuñu ko dara neexul ba neexul waaye yeneen ñi dawloo de trop. ñu ngi leen na suivre nag tout le temps waaye toujours da ngeen ñuy réer te ci joor est-ce que dina nopp doomu ndeyam boobu ndax kooku su fekkee ni yaayam xalaat noonu la kon doomu ndayam la yéen daal da ngeen da ngeen di tàmbali loo xam ne ni doo leen ko mën a yeggali naarit li mu bëggoon instant yi amu ndax njaay moo ngi jël compte am yëpp ko ci maajoor te loolu gënalul naar est que naar du fexeel maajoor leneen est que naar du vidé compte maajoor Sénégal 4TV maa leen di ziare mais série Madior ak Dior ci laa bëggoon a wax Madior ak moom instant moom deful lu dul neex neex daal instant bi moom moom la def mais Dior moom ni mu wére ci jëm boppam dafa yomb dafa yomb torop torop torop dafa yomb Dior moom warta woon a wére noonu waroon nañu nekk di toog ak meer bi di xalaat di xalaat di xalaat ba xelam dellu si mais instant bi moom ni mu wëree yomb na trop trop torop mais série moom macha allah macha allah neex na torop torop mais tamit naar joob moom chaque jour jour day am ndam chaque jour mu am ndam ci kaw waa kër gi lool moom war nañ ko xoolaat bu baax Pape Birahim nag tamit wax naar dëgg naar dëgg moom la ko war a wax waaw maa ngi leen di ziar di wax dëgg fa yàlla série Dior Madior moom jam mënuñu see wax dara nice na trop neex na macha allah dina leen ñaan rek yàlla lafal leen cat dama see dégg nag lu ma naqadi tey jii nii ma dégg benn femme mu wax lu ma metti ay kii gagné na leen nag yéen da ngeen déjà àdduna moom demewul noonu ñii dañoo jóg ngir bégal ñu ñun tamit nañ leen delloo njukkal boobu peut-être ñoom li tax ñu def loolu ñoom ñoo ko xam film bu fayawagul day door a commencé rek mais da nga ciy dégg wax yu garaaw na tey li ma si dégg moom metti na ma trop Marodi TV yi dëgg la dañuy liggéey mais ñi tamit tamit dañuy liggéey ñëpp ñoo ci bokkoo yam man de wax dëgg yàlla mënu ma see wax dara lu dul série joor ak joor ak maa joor moom neex képp la def wax dëgg fa yàlla am wax dëgg yàlla lenn rek moo ma si xaw a touché daal muy joor joor miñ violé loolu moom wax dëgg yàlla kii na ma torop ak tamit xale bu góor bi koy bëgg alors ne maa joor la gën a bëgganteel affaire yooyu daal jaxasoo na sam bopp mais pas leneen moom wax dëgg yàlla sérieusement nice na trop yàlla na leen yàlla defaral jàmm te lafal leen jot. asalaamaaleykum sama waa kër maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn kenn di kontaan nag ci série kay série bi passé nii maa ngi koy doog seetaan nii seetaan ma ko parce que réseau bi du woon puis dama am ñàkkoon tuuti jot moo tax côté bi ma nekkoon amul réseau bu baax loolu moo tax mais macha allah ah neex na de mais dama xaw na doy waar tamit. parce que joor moom comme que xelam ñëwaat na ba lu fàttaliku ni yaayam dafa gaañu mu gis ndaw si xelam dente yaayam léegi def naka yaay yow fàttaliku na aussi su xamante njëkk xamante ak maajoor fàttaliku na fu ñu daan toogee moom maajoor waa ji di ko wax waxu mbëggeel war na wax rek benn yoon ni ko man dama sëy normalement war na wax wala waa ji di ko parce que waa ji wax dëgg moom dem baax na baax goo xam ne wul di am déception ci côté boobu pour man méritowul daal di jox xolam di ko si joor ba pare ëllëg si muy xam ni joor dafa sëy parce que moom dana ko xam góoma ni dan nangu mu takk ko sëy sëy loolu nag xaw dëgg yàlla mais yaawa moom dana sotteeku moom maa joor moom li xàttam bi wax moom baax na nee na ko fiirloo ko fiirloo na de commencé nee na ko yaay ndax déggul ko nee danga may nëbb joor xam nga ko lu ko yóbbu xam fu mu nekk léegi xam naa dina ko wax xamal ni ko yaayam moo tax joor dem dina ko xamal ni ko yaay affaire yaayam bee dina ko wax yëpp incha allah loolu moom gëm naa dina am waaye daal joor moom ah comme que xelam dem si ne daal war na man xamal waa ji ni dafa sëy man loolu moom xaw na ma tiital trop quant à photo boobu photo boobu tante ji xam naa bët bu ko gisee dana fàttaliku ni moom yaayam tegoon na photo bu mel noonu ci lalam fàtte ko fa ba joor ñëw fekk ko joor gis na foto na bi xool ko may xamul nu mu demee mu tegaat ko léegi bu fekkee ne gis na photo bi ci tante ji rek xelam daan dem bi yaayam yoroon na ko waaw moom waa ji mënu ko parce que cousin am moo takk moo takk joor ndax Pape moom ak yaayu joor ak ak yaayu gaayen bi ak naar ñoom ñëpp bokk benn ndey ñaari seex yi yaayam doon wër mooy naar Diop tantam bi tay seexu yaayam bi ñoom ñett ñooy seex yi ñoom seex yi ñett lañu ñoom ñett ñooy seex yi léegi ñoom ñëpp ay cousin ak cousin lañu moom nekk nii moo leen jur ñoom ñëpp moo jur Pape jur moo jur Yaay Joor moo jur Yaay Gaayen bi koy yóbbu seen kër donc moom comme xelam ñëw na war na wax waa ji même bu dul lool sax war na wax waa ji daal ñu def sëy moo gën. ki ma sayal nag daf ma réer xamatoon ko comme comme xelam dellu si expliqué la que ni nga man fi nga ma jëlee xamoo ko sama yaay dafa gaañ xam nga fàttaliku na aussi fu mu nekkaale woon ak maajoor yëpp donc loolu moo naka mën a wax waa ji balaa xolam ndax waa ji mérité wul déception baax na baax goo xam ne mérité wul déception waaw léegi nag bu pare na mu des nag kañ la ka maajoor di gis ak kañ tante ji démarche yi muy def kañ na ci am résultat. photo bi moom génn na ko photo bi daal ñaar jóob ko amul moom laa mosul gis mu génn ko moom Paa Ibrahima génn na basam yaayu joor génn na basam euh, te ji tante ji génn na basam donc ñaar jóob laa gisagul fu mu génnee basam mais daa xam naa daal moom te ñaar jóob mos na wax benn jour Paa Ibrahima ne ko suñu papa dafa amoon alal yow papa amul woon dara loolu wax na ko ne ko ñun suñu papa dafa dafa amoon alal yow sa papa amu woon dara donc ñoom ñoom ñett ñooy seex yi Pape moom mooy seen mag moom seen papa moom la am ak moom papaam jëkkëram bi ko takkoon avant keneen ki di ko liggéey moom la amaloon Pape Birahim la am moom après kee dem liggéey ko mu dof mu tudd ak moom sëy moom am ak moom ñetti doom yi muy naar ak yaayu joor ak seexam bi encore ñoom ñett daal la am léegi ah dana doy waar trop nag waaye mu wax foo wax ko daa man loolu mooy daal sama xel loolu mooy daal sama xel mais macha allah ñoo ngi leen di sant di gërëm bu baax a baax te man gëm naa ne bu du wante yéen moom théâtre bi moom du ma ci mën xam dara du ma ko seetaan jamais parce que gaan suñu côté bi ñu nekk gaa seen bi mën nu ko am chaîne yi amee chaîne yu bari yoo xam ne canal moo koy am suñu côté bi te noonu amuñu ko donc ñoo ngi leen di gërëm di bu baax di leen ñaanal yàlla ci kaw ci kanam rek incha allah ci lu gën ci lu wóor yal na yàlla dëgëral seen taxawaay gën ko yokk bu baax a baax ak seen xarañte.